chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Dakar nee na atte bi waroon jàll tey diggante Adji Sarr suma cliente ak Ousmane Sonko dàq na ko ba talaata bii di ñëw audience spéciale moom kenn rek lañ fay atte lañ fay atte muy le 23 prochain talaata bii war a jàkkaarloo waat tey xam ngeen ne amoon na juróom-ñeent at yoo am neuf affaires mais bii di ñëw benn lay nekk muy audience nga xam ni Ousmane Sonko daa war a taxaw Adji Sarr taxaw Ndeye Khady Ndiaye taxaw seen avocat taxaw ku mën sa morom duma yéen ñëpp journaliste yi ngeen toog di seetaan sénégalais yi di déglu xam fan la dëgg gi waaye liñ seetlu tey mooy am na ko daw bëre bi ku ñuy wax Ousmane Sonko nee na moom du ñëw xëy moo tax mu xam lu tax du ñëw ndax dafa def fi ma xam nekkee benn ku dee da am say say preuve wala say jumtukaay yoo war a indi ba tax ki àtte xam ni yow liñ la waxal amul da ngay yàkkamtee ñëw waxoon ko sax moom waaye tey ji li gis mooy aji saar moo yàkkamti ah ka demoon daa yàkkamti ne tey moom daw na kii ñëw gis ngeen ko tey yéen mu nekk en forme pare pour wax affaire bi ni mu demee fi muy jaar lu waral lii yëpp xam nga olof Njaay mu ne ku mos jàkkaar loo xam ne jëw a neex ku neex ngay balballu wax lu la neex avant làmb ja waaye bis na làmb ja yow rek yaay toog ca ca aayam ba ca ca ca ca ca ca ba war a bëri nag waaye tey am na ku daw loolu àttekat bi moo koy gérer xam nga la géré Adji Sarr mi nga xam ni nee na dañ koo tooñ ci ba pare pour wone li tax ñu tooñ ko waaye kii ni daf koo tooñ anamu est mu ngi dund est dafa nalaw waaye dafa daw waa xam ngeen ni dossier criminel kenn du koy flagrant délit ndax dañu bëgg di gëstu di bii mën na ñaari at ak genn wàll depuis mars deux mille vingt et un nga avocat parce que amuñ droit enquête la instruction juge d'instruction droit oo nit te amul avocat boo amul avocat gouvernement bi moo koy fayal avocat ndax dafa garaaw liñ ko jiiñ dafa daan avocat waa avocat yooyu ñaari at ak genn wàll ñëw taxaw ci kenn tribunal bi naan juge bi dafa sori dañu bëgg ñu ma ñu dellu gën a bëri ndax affaire bi daa bëri ay ay këyit daa bëri daa bëri ay këyit président bi renvoyé na ko pare ñoom ñu ne nañ ci yokk nañ yokk huit jours ma ne waaw ñaari at ak genn wàll nga nekk ci dossier yi ñu ñu yokkaat ci ay bis pour nga gën a xoolaat yow ko yàpp maître mentalité Adji i ñu bëri jàpp te koy déglu tey ak jaagar jaagaram ak ni mu kontaanee ànd ak avocat bi xam xam nga ragal kenn de xam ngeen ki ko ki ko wër ak moom ci boppam am na fulla am na fayda xam na li muy wax ñeme na li wax waa ma ñemewul kay laaj leen ko moom ndax moom moom moo xëy na moom mënul ñëw waaye ki ñëw kay kii ki ñëwul kay ngay laaj ndax moom ndax moom lu ko dal ba ñëwul ndax ñeme na ndax dafa feebar ndax dana mën a tëriir dama El Hadji Diouf waaye bu leen di avocat bu leen di Adji Sarr bu leen di Adji Sarr moom ndax mën na taxaw kanamu tribunal Adji Sarr pare na démb tey soog a ñëw kii daw kii daw Adji Sarr kii daw kii daw kii daw xel du aji saar de kon kooku mën défendre boppam kooku xam na li kanamu Sénégal yëpp gis ko xam nañ ko bu Ousmane Sonko teewul nag loolu laaj ko tribunal bi moom mooy dogal maître en français maître